il est secrétaire général d'un parti le président du parti c'est le premier ministre Ousmane Sonko est-ce qu'on règle définitivement euh, ce, ce ce ce problème <laughs> non néew non en fait euh, foofu laay ñëw léegi su fekkente ne moom tekki na ndomba tànkam léegi su fekkee euh, jël nañu Ousmane Sonko comme premier ministre ça crée de fait une tendance parlementariste un peu de la constitution parce que dañu am une personalité ki a une aura politique koo xam ne euh, dayoom ci politique dayo bu am solo la ak président de la république boo xam ne moom tekki na nombo tànkam ci lépp loo xam ne par parloo politique la donc daf koy permettre mu yéeg léegi ñoom ñaar nag ñu jéem a xool nan la ñu defee ay arbitrage ngir jël ay dogal mais euh, Ousmane Sonko programme bi ñu jël c'était le programme de 2019 programme 2019 bi la ñuy yokkaat def ko programme 2024 kon moom ku xam projet bi la donc boo jëlee ku xam projet bi euh, yore parti bi ak ki nga xamante ne moom tekki na ndomb tànkam ndax daf fi nekkal askan wi nekkal fi réew mi suñu waxtaanee mën nañu déggoo rawatina rawatina bi nga xamee ne Ousmane Sonko euh, local 2022 dafa def campagnal ay maire ñu gagné législative mu campagnal ay député ñu gagné alors que Euh, liste bi nga xam ne moo nekkoon liste euh, titulaire yi dañ ko invalider malgré salaa mu def ko ñëwaat encore génn prison euh, dugal Bassirou Diomaye mu nekk candidat ne moom rek mu waroon nekk kandidaa jarul ñu dàq élection yi donc boo gisee ni mu doxalee ak ni ko Bassirou dénkee poste premier ministre bi mën nañ ci am yaakaar politique nag dafa tëradi mais boo gisee ni mu doxalee gisuñu. politicien di yomba doxale noonu parce que li gënoon yomb ci moom xëy na moo nekkoon mu soutenir la report